واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم أعوذ بالله السميع العليم الباقي الخديم من الشيطان الرجيم mbokk jullit yi mbokk taalibe yi comme niñ ko baaxoo amalee ci waxtu wii di waxtu ajuma fii ci maktabatu Cheikh Khadim daaray Kamil mu seen émission bu am solo ñu tudde ko jotaayu taalif tey jii di 3 euh, novembre 2023 ñu dara jaale ko wala ñu daj invité ci kii di sëriñ daam jaane nekk ab Daara nekk tamit taalifkat nekk animateur ci chaîne bii di Al Samadiyya TV kon bu ko defee ngeen mën koo bàyyi xel fi nga ko daan bàyyi xel ci réseaux sociaux yi. xam naa pour njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy tàmbali émission bi nga xam ne moom lañ leen présenté muy jotaay taalif ñu siy dalal ay borom xam-xam ak ñi nga xam ne ndaw yi nga xam ñu nekk diggante Touba ak Mbacké di yëngu ci wàllu taalif ak wàllu jàngale. kon xam naa suñu daam pour njëkkanteeg waxtu wi rek dañ day laaj maanaam sa biographie maam fan nga jàngee ak sa say jaar jaar daal boo ñu ko mënoon a xamal ci tënk bu rek bu ko defee ñu mën a tàbb ci émission bi suñu waaleykum salaam wa rahmatullah sang bi noo lay fay nuyu bu baax sëñ Fallou di nuyu mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan fii ci Daaray Kamil TV di nuyu waa daara ji ñëpp di leen sant ci yaatal gi nga xam ne yaatal ngeen ko fii ci émission bi di jataayu taalif di jataay bu am solo ñuy ñaan sunu borom barkeel ko te defal nu tawféex lépp lu ñu fi génn rek muy njariñ waaw Dame Diané day as ndonga su xeebu la soo xam ne mu ngi ganee àdduna Tëngéej Eh, bi mu matee dal jàng ñu andi ko fii ci Touba kon Touba moom dama fee jàng si woon bi ma jàngee ba noppi tamit fi laa far am kër am fi soxnaa ki yore fi daara waaye sama alxuraan maa ngi ko yeggalee dëkk bu ñuy wax Njaañ Njaga ci daara yi Serigne Njaga jaan ci loxo yi Serigne Xaadim Gueye waaw loolu daal mooy jaar jaar ñu dëkk fii ci Touba di jàngale alxuraan di nap na bi ci wàllu taalif ci daara jooju tamit fi la ñu tàmbalee taalif bi ñu ñibbisee ci atum ñëw ci dëkk bi dëkk bi moom dëkkub taalif la ñu dajee fekk warami xam-xam yoo xam ne ak ay kàngam yu yëngu ci taalif ñu gën ñoo soññi gën ñoo xemmeem loo mbir mi ba yàlla defal ñu ci tawféex ñu ñëw tey ji ci jataay bu mag bi nga xam ne ku fi xas ba yegg si rek ci barke bërëb bi ak jataay bi mel na ni ràññeeku nga ci mbir mi ci seen barke. jërëjëf euh, sëñ daam ci tontu bu matale boobu mu ngi mel ni kon sëñ daam wax na biographie ma fi mu jaar. ak fi mu juddoo fi mu jàngee ba ni mu egsi fii ci pàkku teer bi Touba nga xam ne képp koo xam ne nga rek fii nga fas yéene am kër dëkk fii dugg ca bayit ba la Sëñ Tuubaa waxoon ca kulam kula masaajida ca nooru daare ni wàccal bu yóotu kulaha masaajida nga xam ne dëkkuwaay bu nekk day taxaw jàkk fii ci bërëb bi kon suñu daam ñu lay sant bu baax ci dëkk bi nga dëkkaale ñu ñaam defal la naa ginnaaw da taalif moom dañ doon laaj la moo dugal ci taalif. waaw taalif euh, li ma ci dugal boroom xam-xami taalif yi dañuy wax ne taalif day wàlle dañoo dëkkandoo woon ak ñoo xam ne dañ doon yëngu ci fànn googu ci biir daara ji li ñuy def euh, neex ñu ñuy way way sëñ Moussa Ka ñii di way way sëñ Mbay Jaxate ñu di ko bind tamit di ko taf ci néegu gaa yu mag yi ñuy wax gaa yu mag yi gaa yu mag yi ne ci daara ji seen néeg yi ñuy bind seen ñuy bind ay wolofal nattoo di kerkeraan di ko taf ci seen néeg yi boo fa duggee di ko liirantu di ko jàngant noonu ñoom itam ñu dem ba ñoom seen jëm bopp ñuy taalif ci kenn ku ñuy wax Fallou Galas njaay moom nekkoon njaareem daan jóge njaareem di fa indi ay taalif taalif yu njëkk ya ñu di ko déglu di ko mokkal ba yàgg rek ñu ne nañuy jéemantu ñu jéemantu nag ba ba yàlla dogal ñu man xam naa di taqale daal waxoon naa ko Eh, jaxasey pétale di dem baxaru ba def lu jub muñ nañ ba xéewal lekk si yaay nañu santuwaay nga xam ne dañoo jaxasee di taqalaatu ba yàlla dogal ñu mujj am ñu ñuy orienté ba mujj daal mm, bokk ci daal waaye xemeem daal ak roy ak toppandoo moo ñu ci dugal. macha allah sëñ daam ci leeral yooyu nga xam ne leer nga ko ci ni nga duggee ci taarif. Hmm. mais beneen laaj bi ñu lay laaj mooy ndax bi ngay. tollee ci jàng alxuraan la jëlal ci alif bi dikkal wala ci nga ko doon def wala ginnaaw bi nga noppee jàng ba commencé jàng la ci nga commencé taalif wala doon bi ngay jàng di nekk ci daara ji yaa ngi doon bindante di taqale comme ni nga ko waxee ci sa biir wax. waaw bi may jàng alxuraan ba mokkal bi ma demee ba mokkal ba xam ne am naa fiix teg mën a soobo ci leneen mën a xool leneen loolu waaye bi ñuy jàng moom jàng mi dafa fattoon programme bi dafa dafa feesoon ba. Mhm. nga xam ne ngir mën cee boole dara. xawoon naa jafe. Mhm. waaw ci atu deux mille cinq yooyu ci geeru euh, Irak ak euh, Amérique bi. Mhm. ci la njëkk bind wenn way woo xam si dañoo topp ndoo woon rek ndax àdduna àdduna ndax day bëgg a jeex. Mhm. am gaa yu baax yi bëgg a jeex. Palestine ak fu ne di xeex. nit ñi di faatu rek di dem. waa Amérique ak Angleterre jàppan Irak rek di dóor jaay leen doole jël seen i mbir def seen mbir jàpp Saddam yooyu la njëkk a way mu neex ñu bari. te wow lañ njëkk a bind nag mu neex waa daara ji ñu pikk ko ci ay kaset macha kenn ku nekk di ko àbbante boobu nag fekk na ñu wàcc ba toppaat ba mokkal mm-hmm. bay beqi bay am ñu ñuy taxawu naa laaj bu sax ma waroon nekk laaj bi jiitu xam naa xam ne xam nga ko anticipé waaye ba tey dañuy wéyal rek mm-hmm. boo ñu mënee indil benn taarix boo xam ne dina gën a mën a yaatu boo xam ni def nga ko mm-hmm. boo xam ne bu am solo la bu jëm ci nga xam ne ku ko dégg dañ ci mën a jëriñoo incha allah defe nga indil ñu ko ñu mën koo barkeeloo waaw jërëjëf sëñ taalif bii ñuy indi moom xam naa genre introdi introduction rek lay doon mhm. dama ne ci ñeenteelu leetar yooyu tubaab yaa ki ñooñ arab la suñ tur di dooree lëm na yi mbooti ñeenti gox fa sharqun wa garbun ma yaminun simaliya danañ sax di waaroo lii ñu fiy léebu ak di cax bu aw ñeent lëngoog ñeent seen limba lëm na xaa limub xaa la buur toojee aras géej gi am na ndox alif gaama ubbil wunti maanaa yu xóot a xóot fileeg fóore tafsirul fi mim sàdde maa ngi jax na ngeen tinki seeni xel te tàggat ci seen xalaat goreel seeni yuq ak yuur ci njaamu xalam gu tax fu axbaar yi ak ruhbaan yi waaree ba mar ci wax suñuy géej lañ ñépp yi naa ne ñooy duusu ngën ji ndox bu doktoor yi ak maaman yi moccee dangar ji të suñuy jat la tookay waate gox bu mu ko dégg fëx bu daayeeg xalim diisoo ba muur ngëñ ji seetu way sunum xel la xeemeem teef di doy loo ñu far ñu jox bu daayeeg xalim diisoo ba muur ngëñ ji seetu way sunum xel la xeemeem teef di doy loo ñu far ñu jox ci biir lëggi lëndëm kukku lan di fës suñu nàñña ñiital jant feeñañ ci bépp gox përëntaan du dàqanteeg njugub mbaate kàkkatar ba leen dox di gam-gam leen ndobin ràmm toog pi tax bu ngeen namatee tukkee fu seen tànk lotta dem bu leen jël fafal naaw waay bu leen tàbbi gaalu ndox na ngeen war ci ngoobum way mu naaw fër wàcc leen fu jëm ak jëm ak jëfam lottoona mos cepp mee fa sax bu leen démb réeree jaaxle jax jeqi seen ëllëg na ngeen gindikoo taalif yu maanaayaat naat na tëx xelay koom xamay gànnaay ku jub am nga làquwaay xalam looti leen riiti xalaat ngeen ñëkk ngeen di wax xareb xeeti xam-xam way wolof toj na seen tata bu leen jinne jommal joggi nañ ne yab ci pax xareb xeeti xam-xam way wolof toj na seen tata bu leen jinne jommal jéggi nañ ne yap ci pax man mooy xasida goo xam ne si dañ ko doon def benn introduction yi rek di ci wax di ci kañ wooy way wolof ak bàkk wolof jërëjëf ci taalif bu am solo boobu xam naa laaj bi topp rek mooy dañ laaj maanaam taalif bu am solo bi nga bind bi nga bind daa amoon tax nga bind ko wala dafa amoon lu xew ba nga bind ko daal waaw ak boo ko mënee ma bolwal laaj bi ak boo ko mënee maanaam tënk ci wolof bu bu leer waaw bu légère boo xam ne ñu ngi xam ne seen xel xel màccul ci wàllu taalif dañ mm-hmm. ko mën a comprendre daal waaw taalif day am boo xam ne ñetti façon la daa am taalif boo xam ne si yow sa bopp nga koy taalifal mm-hmm. am boo xam ne askan wi yëpp nga koy taalifal mm-hmm. am boo xam ne taalifkat yi ci seen jëmi bopp moom nga koy taalifal <laughs> ngir bëgg leen a wan yow sa dayoo la ñuy wax faxr daal li mhm. ñuy wax bu doon ci rab dañ laa ne écotrip la écotrip la kon léegi maanaam ci gàttal kon taalif bii nga taalif nii xam mhm. moo ko tax a jóg ñi ko moom mooy ñi nga xam si dañuy woy ak ñi xebet woy waaw mhm. ah, ñiy way ñoom ñoom laay soññi ñi nga xam si ñooy xeebet way ak di xeeb taalif ñooñ tamit ngay dànkaafu deen xamal ne way mooy lépp maa ngi ciy wax ne ci biir ci ñeenteelu leetar yooyu tubaab yaa yaaki ñooñ arab la suñ tur di dooree lëm na yi mbooti ñeenti gox man daam laa tudd sama sama tur boo ko dee bind alif ba jiin daal ci mhm. ñeenteelu araf wa fa nga koy am mhm. boo ko dee bind ci lay lay late yi tamit a b c d mhm. ci ñeenteelu leetar yooyu tubaab yaa yi ñooñu arab la suñ turu doole kon lëm na yi mbooti ñeenti gox maa wax ne fa charqun wa garbun ma yaminun simalia kon ñeenti gox yooyu mooy penk ak sow ak saalum ak gànnaar léegi nag 4 plus 4 égale 8 borom xam-xam yi dañuy wax ne ñi nga xam ne si malaaka yi ama allazina yaxmiluuna al arsha fa addahum xaaun buqiital barsa kon ñeent yi nga xam ne si juróom-ñett yi nga xam ne ñoo taw aras ñooñu juróom-ñett lañ juróom-ñetti malaayka yi mhm. kon 4 plus 4 égale 8 kon nag géej gi am na ndox daam jaane mën naa woy mooy géej gi am na ndox macha allah <laughs> laa jël nag alif gi mhm. daane alif gaami ubbil wunti maanaa yu xóot a mhm. li feek fóoree tafsirul fi mim maa ngi jax kon léegi daam day day daal di ñëw. Mhm. léegi nag ma daal di bëgg a wax ne na ngeen tënk seeni xel te tàggat ci seen xalaat goreel seen yokk ak yu ci njaamu xalam ko tax bu leen kenn tënk ci ne. faaw nga dégg français wala nga dégg mhm. arabe soo ko nekk mhm. intellectuel da ngaa war a xam rek li nga war sa diggante ak sa borom ak yow sa pas-pasu bopp naatal say xalaat ci web ndax fii képp koo xam ne si mi ngi waxtaan moo xam ci Serigne Touba lay waxtaan wala xam lu mu a faw balam ba li wax. Mhm. pour mu am cafka. Mhm. faw mu andi ay bayit. imaam mu nekk bayti wolof. fële mu nekk bayti arab mhm, waaye moo tax ma ne fu axbaar yi ak ruhbaan yu waaree ba mar ci wax. suñuy géej la ñëpp yi naane ñooy duus ngën ji ndox. bu docteur yi ak maaman yi moccee dangar ji su suñuy jat la tookay waate. macha allah. <laughs> xam naa da way est-ce que mënoon nga waajaloon nga taarif boo xam ne da nga jëmale ci nga xam ne mm-hmm. mooy ñetteelu xaaj bi nga wax ne mm-hmm. maanaam pour ñëpp la waaw est-ce que amoon na taarif boo xam ne moom taalib ñëpp koy a jëriñ koy mën a jëriñ waaw bu fekkee jàpp bu fekkee jàpp ne ñu ñu woyee laaj rek taalif bi nii ñu ci taf bëgg a toftal mm-hmm. mu ñaareel bi mi ngi wax ci muñ muñ boobu am solo jamono ji laaj na ko lool ndax. Mhm. mel na ni nit yi ñuy dund. dëgg la na xam naa di leen jéem muñ loo sax. Mhm. moom dana jafe waaye waxal li nga war a wax. dëgg la dëgg la. dana bismillahi rahmaani rahim waral ci gaal gii di muñ. ndéem bëgg ngaa bëri ndam. ak muñ la gaaya rawee jàmbat dadut maye lëf. Mhm. waral ci gaal gii di muñ ndéem bëgg ngaa bëri ndam. ak muñ la gaay rawee jàmbat dadul maye lëf ab nattu day yokk ay maqaama ak daraja li féeg boroom nattu baa ngay sant boole ca jëf muñal te buur yàlla tax saalit du tax mbir a jàkk dogal ba ab àpp lay nekk léegi buur ne ko tëf ab sang day sang ay tiisam du ser ak a sab saytaane bu mu def sa xel naa li mbindee fa ko def kiy fetti pepp mu sax génnee ca gub ak i xob buy natt say ngar kay xanaa ngëneel la cee bëgg saf kii fetti pepp mu sax génne ca gub ak i xob buy natt say ngara xanaa ngëneel la cee bëgg a sëf bul soobu mbir gis ca ay mettit nga rocci ku daw jàmbaar dadaa jëm ñu koy jam góor dafay bari taf légit bi ngay tiitaroo ci nawle dooma ki sët garab ga tax góombe ak muñ la nang ko ca def dëggul dëgër dërëleel daar daar la coono bi wéy doo am la ngay wut te déggoo mas sa yaay ni la ëf tànnee fi jikko la muñ mooy xaaji diine dingam mooy yéegu bi yéegi gaay yi nii fi xëy ami yëf muñel ma sag ñàkk muñ sag suufe muñ sa tawat koom ak wér ak kaw gaa ngi tiim sa bët ni ki xef alhamdu tey yéegu mbég tey daagu seey ci sa kër waajee ngërëm ak i ndam ngay ràcc ndam ya di sif muñ muuñ ku muñ da nga muuñ yenub teraanga bu diis teeñ baa di muñ ga rafet jàmbat da dul lëf muñ muuñ ku muñ da nga yenub teraanga bu diis mm-hmm. teeñ baaji mën ngi rafet jàmbat dëddul may elëf allahuma salli ala sayyidina muhammad macha allah sëñ daam mu mel ni taal bi moom daa mel ni daa ñëw ci waxtoom mm-hmm. ndax ku ne xam ne fi jamono toll metti waaye géeg a yi ci aju yëpp rek waaye kon lii ko dégg yaakaar naa dégg mm-hmm. sëñ daam mu dafa la taalif muñ boo ci sukkandikoo rek suñu borom man laa dimbale ba nga am lu kawe si njort xam naa ba tey ñu laaj rek sëñ daam ndax taalif yi ngeen taalif ni amee solo ndax yéen a koy tasaare ñu ngi koy móol di ko tasaare ak tamit yan jafe-jafe ngeen ci am daal. waaw taalif yi nga xam ne si ñu ngi koy taalif xam naa mool gi moom di ko tasaare moom xaw naa des xanaa li ci ëpp rek yi ciy tasaaroo mooy lu mel nii nga toog ci jataay télévision nii wala rajo wax ko mu jàll dugg ci internet bi xam nga loolu genn anam la ci wàllu wesaare. Mm-hmm. geneen anam gi nga xam si dana ci amit mooy ñun danañ koy am na ci yoo xam ne si dañ ko monter dugal ko ci suñu seen YouTube. waaye mook bii rek sorente wuñ sorente wuñ léegi nag yeneen yi ci des nag moom yi xaw a tasaaroo mooy yi nga xam ne da nga koo way ci wenn askan ni ki waa kër sëñ Mor Diop Ndar ci misaal mhm. misaal mu gàtt mhm. marché bi ma defoon sëñ Mor Diop ñoom dañ ko mhm. jël def ko ab téere nga dem geneen weneen askan woo xam si defal nga marché ci ñoom wala nga defal leen ak xasida ñoom ñu daat koy jël def ko ab téere loolu mooy tasaaroo waaye jëmmi def diiwaan boo xam ne si maison de production boo xam si day ñëw maison de éditeur bu ñëw jël ay wolofal loolu moom euh, tàmbaleeguñu xam naa daaree kaamil moom moom moo ko war a njëkkee te <laughs> moom mooy yëfi murit yëpp tey ngeen seenu liggéey ci fànn yëpp waaye loolu lu am am solo la muy fexe ba ndaw yi nga xam ne si moom mën nañoo bind bind nañ lu am njariñ ta mm-hmm. dana jëriñi yeneen société yuy ñëw yeneen askan yu ñëw future génération mm-hmm. ñu fexe ba dencal leen lii te fii mooy dencukaay gi nga xam ne mm-hmm. sëriñ bi da ko fàggu ci njàpp ndalu suñu Abdul Ahad loolu tamit yaakaar naa ne moom waaye jëmmi taalif yi moom weesaaroo gi weesuwul loolu jàng ko mu dem tasaaroo dugg ci biir YouTube bi ak ci télévision yi ak yenn ci émission yi waaye ji moom moom yegg see guñ am nañ ci yenn nag tax ñoo ngi ciy xalaat. macha allah xam naa yéen tam ñu ngi leen ciy tàllal. incha allah rabbi taala xam naa beneen bi mooy ndax si ndaam li ngay bind ni mu amee solo yaa ngi koy dajale ci maanaam ko électroniser ba nga xam ne maanaam tey fi nga ko bind nii bu lakkoon. Mhm. di nga ko mën a amaat ci nu mu gën a jàpp ne ndax boo xoolee jamono fi mu toll. Mhm. weesu nañ di bind ci kii di dem rek ndax. Mhm. masalan tey mën naa lakk wala dinax yi laal ko. est-ce que yaa ngi koy bind fas yéene ko dajale boo xam ne bu ma matee ab lim génn ko ab téere boo xam ne danga xam ne yow ci way yi ci yëpp maam taalif yi nekk yëpp yaa ko yaa ko bind comme ñi nga xam ne dañoo féet ci geneen wet gi comme ci littérature bi ak mhm. daam pare nga wala yaa wala nekk na sa xel yaa ngi koy waajal bind ab téere boo xam ne téere taalif lay nekk mhm. waaw loolu moom ñu ngi ciy xalaat bu baax am na ku ñuy wax Mouhamad Lamine Diop amiru sohra moom moo gagné woon concours mhm. euh, bi doon am imarat soññ na ma ci ay yoon yoon ngir électroniser ko nag xam nga mbind mi mbindum wolof mi amul ci yàq bi amul ci amul ci clavier bariwu ci liñ mën a def rek moom scanné ko def ko def ko def ko kii pdf mhm. wala nga def ko mhm. wóot denc ko ci sa machine lool moom ñi ngi koy def way ñu bind bu soobee yàlla mhm. danañu ko scanné denc ko ci document yi wala ñu def ko ci suñu suñu suñu disque dur moom ñi ngi koy def bu ko defee yooyu tamit wenn anamu dencin la nga xam ne ngir bàyyi xel lool ndax léeg-léeg tamit nga woy ba noppi ndox tuuru ci ndax fu nekk nii lii bu dutoon ak ah. album bi mu nekk da ngay gis ne parce bu ci nekkutoon da gis ne bu ci ndox big fët bi ñu koy bindee wala daa encre ji bu ci bu laalee rek waaw ah, loolu tamit xalaat la boo xam ne si ñu ñu ngi ciy bàyyi xel baax baax baax waaw loolu ñu ngi koy ñu ngi koy am benn question boo xam ne si dama ko wala benn laaj boo xam ne dama koo tëb muy yan jafe-jafe moom lañ ciy jànkoon waaw jafe-jafe bi nga xam si taalifkat yëpp ñu ngi koy jànkateel mooy jafe-jafe considération hmm. maanaam ci télévision yi ci rajo yi ba ci biir programme yi sax hmm. euh, da ngay gis ne euh, duñ leen bàyyi xel bu baax a hmm. baax télévision yi nga xam ne si yu ñuy askanale yoonu murid la yi nga cay dem fekk ca émission taalif tam yu néew la buñ ko tàmbalee tamit duñ ko jox cër duñ jox cër mm-hmm. ka nga xam si moo koy def ba day mujj yàgg xaaj daal di bàyyi mm, loolu benn la ci jataay yi ñi amal nii nii am na jataay yu bari yoo xam ne si taalif mm-hmm. da gis ne amoon na fa place amoon na fa jëmm mm-hmm. ba ci conférence yi ñuy def ba ci cérémonie officielle màggal gi yooyu yëpp da gis ni ki ñu fay waxtaane mooy Serigne Touba ñi ñu fay waxtaane genn wàll gi ay wolof ñoo fa toog ñoo fa toog bu ñu fa jàllale woon xasida goo xam si fukki bayit ñaar la. Mm. day am solo lool day am solo da koy jëmmal da koy beneen bi des mooy nun ñi bi nga xam ne si ñëw ñëw nañ fekk mag ñi fi ñu fi fekk nga xam ne ñoom lañ ñooy suñu reyukaay mm-hmm. muy ñu mel ñoom suñ Maamoor xam sa diine mm-hmm. ñoom baay Jagal mm-hmm. ñoom Ahmadou Baas ak ñeneen ñu ni mel ñoom suñu Abdou Ka ak ñooñ ñëpp ñëwee man dama li ma njëkk xalaat mooy naka la ñuy def ba maanaam business yaliser taalif waaw ak réactualiser ko mhm. fexe ba mu gën a méngoo ak jamono ndax ñoom liñ waaw ñu mën koo bàyyi ñu ko bàyyi xel moo tax taalif yi ñu njëkk taalif yi ci ëpp mhm. dañuy taalif ci mbëggeel mhm. ñu taalif dañuy taalif ci mbëggeel mbëggeel bu légère boo xam si ñëpp dañ koy dégg ñëpp dañ koy mën a mën a mën mm, a ak seen i soppe nit ñi seen bëgg-bëgg waaw foofu la nekk ah, waaw nga mën a sensibiliser nit ñi waaw loolu benn la ci beneen bi ci des tamit dañ ciy def ay publicité nga xam ne si publicité li ñu ci xamoon rek mooy dem jox ko. benn dijee benn dem naa nga waaye nga ñëw marchandise mi daaree kaamil. Mhm. nga ñëw taalif ko ne am na nangam ak nangam ak mhm. nangam. même boutique boutique ñu dekk ñu di ko mhm. ñu di ko def. macha boo xam ne si spécial wala produit boo xam si. spécial publicité bi lépp taalif la. macha allah loolu nekk ñaar. ñetteel bi ñoo ñëw essayer loolu noonu. loolu la njëkk a tàmbali ne nañ ko jiyam. mais essayer ko mu jàll ñu daa ciy def li wax journal. journal journal boo xam si xibaar xalima la tudd. Hmm, waaw maa ngi ñu ko dañuy def xibaar xalima. Hmm, hmm. nga xam ne xibaar yi lépp xibaar yëpp taalif la. macha allah kii kii présente journal bi. ci ay taalif la koy def reporter yi. ay taalif la koy def waaye taalif yooyu journal boobu du nekk journal rek. journal la boo xam si dafay ànd akum njàngale. day jukki ci xew-xew booba. la ci ëpp solo ak la nit man a jàngee. daal di koy daal di koy def def ay bayit. dëgg la nga xam ne loolu loolu la. beneen des ñu ngi ci. li ñuy wax modéra modéré mhm. modéré ay jataay léegi su fekkonte ne fii dañoo am benn thème ñu ne daaray kaamil tey ñu ngi fiy waxtaanee thème sàngam mhm. conférenceur bi maa ngi nii toog mhm. boo amoon benn taalifkat mën naa toog fee lépp lu taalif conférencier bi jaar rek mu bind ko ci ay bay xam ne bu noppee au lieu que mu ngi laaj koo xam si dafay taaliq mooy résumé bi taalif la koy def loolu tamit essayé mm. yu mag yi mm. ñu am ay partenaires ak yeneen yi nga xam si nànd lañ loolu buñ amee amee programme mm-hmm. ñu ciy boole jamono am na yoo xam ne si sax mboolem koo xam ne si am na fi màggal da ngay da ngay woote ñu woo gi. Mm-hmm. ñu ñu ñu ñu ñu defal la taalif defal la ay marsiyaat waaw comme daal jafe-jafe bi mooy. Mm-hmm. nit ñi xam mbir mi. ba noppi fonk ko. ba noppi boo leen defalee loolu ba noppi nag. la war sa diggante ak ñoom loolu mm, loolu ñu koo ko fonk xam ne defal nga leen am na koo xam si boo ko wayalee ba noppi hmm. jëmmi kayitu waay yu sax du ko jël xam nga loolu tamit manque de ah, considération la ah, loo xam si ci sa maam lañ ko wax wala ci sa produit lañ ko wala ci yow lañ ko wax war ngaa jël kayit yi war ngaa teral ko archivé ko archivé ko naka noonu noonu la ñuy ñëw waaw ah, dafa histoire moom lépp dañ ko bind. dañ koy bind ah. dafa amoon benn maire boo xam ne si mooy maire yii nii. Mhm. boo xam ne mi ngi euh, ci boori Kajoor gii la mhm. nekk. Mhm. moom nag bi muy campagne maire yi dafa faroon ca geneen wàll ga wàll gi pouvoir bi xam nga jamono yooyu ñoo ñi leen jublu woon bëriwul waaye moom daf maa joxoon bilan li mu liggéey ci sept cent yi ne sept ans yi ne ma ko defal ma ko defal ma ko ab taalif bi ma ñëwee ba jàllale ko ci biir meeting bi ba noppi dafa am ko xam ne si ab ancien ministre la woon ca jamonoy Abdou Diouf. Hmm. mu daan ni lii dañ ko war a jël. Hmm. traduire ko moom transcrire ko. d' abord en transcrire ko en en lettre. en latin waaw lettre moderne. wëlbati ko transcrire ko traduire ko en français boo defee taf ko ci maire bi ku fi ñëwati xam ne hmm, maire sàngam jaaroon na fi def na lii def na lii comme loolu kooku mi ñuy valoriser hmm, di nga ko defal te moom ma nga dëkk fële ancien ministre anam woon nga xam si ci taalif lañ judd <laughs> ci taalif buñ ko bu noonu la ñuy def ba ñeneen ñëw jël ko defaraat ko ñëw diñu ko jaayaat wallaay ndeysaan waaye xanaa li ma la ci loolu rek mooy ngeen xam ne la ngeen yor tamit lu am solo la ndax hmm. nit mën na cee jaare yeewu kon ne serait-ce que moom bu ñu nit ñuy xawee doyee tamit yéen ngi gëm seen bopp rek ah, ndax en persévérance bu yàggee rek mhm. nit ñi dañ ko gën a bàyyi xel amaana sax nit ñi maanaam seen ñàkk ko bàyyi xel nekkul ak ñàkk a fonkeel mais ak ñàkk xam la ak ñàkk xam la ndax bu bu yaatoon comme ni conférence yi yaatoo rek mm-hmm. comme jotaay yu mel ni bu ñu ko dee amal rek mm-hmm. bu yàggee nii jàpp naa a ba nga xam ne mm-hmm. dina gën a yaatu mooy est-ce que seen euh, taalif goo xam ne moo leen moo leen moo leen lënkale ak kuréel gi ndax diggante Touba ak layam wala am na ci ci réew mi yëpp yoo xam ne kuréel gu xaw am jëm goo xam ne moo leen lëkkale yéen taalifkat yi waaw amoon na kuréel goo xam ne si <laughs> <laughs> amoon na kuréel goo xam ne si moom la ñuy wax multaqa sonra mhm. moom kuréel la goo xam ne dafa boole woon ay taalifkat ak boroom xam-xami taalif ak ay soppee taalif doon daan liggéey liggéey bu am solo lii may wax ni yëpp biñ koy tàmbali di ko essayer mhm. ci ñoom lañ ko àndaloon même journal journal taalif bi moom moom lañ ñoom lañ ko doon àndal doon nañ taxawalit benn euh, concours boo xam ne si xalima wurus la tudd waaw ñu daan daan ci ànd ak waa daaray kaamil ak ñoom ñëpp mm-hmm. euh, loolu doon na ko waaye jamono yi bi corona ñëwee ndax mm-hmm. euh, ko kii kuréel googu noonu mm-hmm. seen liñ leen gënoon a miinee mooy concours bi nga xam si dañ leen ko daan dañ ko daan taxawal at mu nekk léegi nag bi jamono corona ñëwee nag ñu taree dajaloo bi ce concours bi daan regroupé mboolem ndax dañ ko daan def par quartier mhm. première tour yi fii lañ koy defee deuxième tour yi ñu defee ko koñ sàngam troisième tour yi def ko fee mhm. final bi nag ñu ko ci jumaa ji fii nii fii nañ ko daan joxe ci quinze safar mhm. jamono yooyu biñ taree dajee dajaloo bi taree dajaloo bi ci la at moom ak at mi ci topp ci la jëlal diggante boobu nag ci la gars yi tasaaroo ñii dem tukki ñii ñii dem jàngale ji ñii dem jàngi ñi nga xam ne boobaak léegi dajalewaat leen. xaw naa jafe euh, euh, mm-hmm. ngi wisaar kenn ki nekk fa nga mm-hmm. nekk yaa ngi fay doxal waaye jëmmi kuréel gi moom mm-hmm. loo xam si. dana jëmal mën naa am yi di ñëw wala ci kanam. danañ dil siwaat incha allah kuréel googu mi ngi tuddoon Multaxas Sohara ñoo ngi ziare ñi ci bokkoo ñëpp di leen di leen di leen bëggee sëñ Xaadim Bambalo sëñ Seex si la taalib ak mboolem borom xam-xamee sëñ xanaa nga profité lancé leen appel ngir ñoom ñu mën a ñëwaat ba waaw dil siwaat yëf yaa ngi fii tey la wooy gën a neex tey la gën a neex nit ñi <laughs> tey la gën a neex nit ñi mhm. te it mbooleem kàngam yëpp tamit ubbil nañ seeni bunt ndax lii tamit ah, ah, ak ubbi la mhm. te yaakaar naa buñ ñëwaatoon danañ ci gën a jàpp li ñu jafe woon lépp danañu gën a yomb mhm. mooy média boo xam ne si dana la nawloo boo ñëwee dana la jox cër dana la teg fu baax dana la dana dana xam li ngi def dana la valoriser daal loolu moo jafe woon te am na te xeex nañ dañ ci lu nekk <laughs> dañ nañ lu nekk xam naa am na benn bis boo xam si bu doon na dañoo doon def li ñuy wax adduru nazim mhm. jataay la boo xam ne waykat bu nekk da nga daan way fukki bayit ak ñaar mhm. ñu daan ko ànd ak waa xidma mhm. buñ ne ginnaaw buñ ne ginnaaw suba la màggal ñu ñëw fii ci penk sowu jumaa ji di ko fi gaaral mm. mm. léegi nag laataa ñuy xamante ba xet ma ñoo xëy suba di wër di wër bërëb buñ ko defee di wër bërëb buñ ko defee añu ñu <laughs> ba am doon ay njóobeen rek <laughs> am <laughs> daanaka nga xam ne dañoo mujj wër a wër a wër ba nar wut ay pot yelwaan yelwaan <laughs> dellu cosaan dellu cosaan nga xam ne kër si Abdou Khadir yi lañ mujj añee ndeysaan <laughs> loolu lépp jaar na ci ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn ko nettali mhm. waaye nag alhamdulilah tey lépp ah. jeex mhm. lépp ubbeeku na nii mhm. ñu sant bu baax alhamdulilah jërëjëf xam naa suñu daam kon xam naa ñu ci mu ñu tele waxtu yi xam naa kàddu yi ngay tàggoo ak lu ngay wax ci daal Kaamil TV bi nga xamante ne ñoo la daloon fii ci jotaayu taalif. waaw bu ko defee ñu mën a wàcc jotaay bi ba beneen incha allah. xam naa li may tàggatoo rek mooy euh, fii moom bu ñu. xam naa ngaa tàggatoo sax nekkoon sama xel boo mën a indilaat beneen taalif. waaw waaw waaw bu bu ci dana am solo. bu ko defee taalif bi wala ngaa tàggatoo ak moom nga boole ko waale. waaw. Mhm. taalif moom mhm. euh, dañ koy jëmale ci sëriñ bu mag bi ah, moom bu ñu fi toogee woon mën cee ñàkk kon bismillahi rahmaani rahim yàlla di buur moo amee sañ-sañ di jëf lu du dañ moo màgg yiw rëy mbir moom rekk rekk xereñ mhm. yàlla di buur moo amee sañ-sañ di jëf lu du dañ moo màgg yiw rëy mbir moom rekk rekk xereñ mhm. moo tàwu kaw téye suuf nga jéeri jawwu ji dal wommat na jantaki weer biddiw yu gindi mareñ tërniir yi teg dënn yi taw lay ngelaw ak i naaj naataange bekkoor bi mooy fekk lor di ñoddi di jañ moom rekk moo mat a gëm mooy faat te mooy dundalit kiy faj di woppale moo lay jox ñeneen ña mu xañ nameelam ak dogalam la binde nit ñi ci ban def leen kali xalifa ci kaw suuf kenn sañut la mu sañ dëgg la nameelam dogalam la binde nit ñi ci ban def leen xalifa ci kaw suuf kenn sañut la mu sañ kii duy nga neel xut bu yàgg wàll yu yàgg nu jabaa rëbba ma dal na ca kaw saytaan ma doon wut a bañ buuru panras bi ki moom moomee li moom ña ko moom mooy tabbudul jeela mooy tàllal li ngeen di taxañ moo xam la nëbbu la peeg liy feeñ ci seen périgët naaxul lu fàtte mbirum gumbaaku xel ma la fañ fam rànge yonneen ya ay maqaama ak daraja la tànn Mamadu muy seen njiit li may bëgg a kañ masha Allah muhammadun xayru xalqillaahi nicmatuna salla alayhi ne yërmandeem ja ñëpp ca añ mm-hmm, jaal mboome yaasin ma raw cib taar ku tagg ko raw doo patt doo piita doo bémpañ di dëkke toxañ mm-hmm. bàkkal ma surgaam balaa ngay ñëw ci njaatige la xaadim rasuulu ma tax tey cedd dooni sëriñ bàkkal ma surgaam bu mag boobee ca pàkki bawal xaadim rasuulu ma tax tey cedd dooni sëriñ kabay la yónneen ba ruujoon ñak sari amu ñoŋ taaral xaqiiqatu leeral diine fépp ne nañ masha Allah ka buddi buutub biddaa sampaat fi sunna su set mm-hmm. moo fur sunuy dandi xel xol yaa ngi mel ni fëriñ ka déj ji pakk yowoon ca ngir ma muy bakkan ak mbokkam ya moo xëcc iblis noon ba fëgg ko ndañ mm-hmm. ka daaj ji jéng ya daajal ñuy tëggat ak ilal moo jàll réew mi ku koy diingat ñu foq sa bañ ka jéng daajal ñuy tëggat ak moo jàll réew mi ku koy diingat ñu foq sa bañ mm-hmm. foo gis ku diina jaral këram ya wéet ati at mm-hmm. ramu ñoñam yóbbe woon koy natt muy dëkk muñ foo gis ko ànd ak aki noonam dem ba dellusiwaat tiitul raful jàmbatul lam bañ mu koy gën a bañ foo gis ku tagg yoneen kem way yi bàmba yaxal mhm. maqaama yaag martabay mbindam ya gétti sëriñ seenun gisuñ warunu xoolunu wutun amunu ku mel ni bàmba ku jóg di raas ko dox ba la fañ mhm. jàmbaar ja jot alxuraan taalaal na taalaat na jàngu ya fay mhm. jàmbaar ja jot alxuraan taalaat na jàngu ya fay bën bën ba seytaane doon yërndoo ñu moo ko samañ mm. mooy nit mooy nit niteel ñañu noot naatal na suuf ne nawet nawaloonte nooy sunu biir noonoo daama ko jañ mm-hmm. moo xam ne yilla ju set joxuñ ñu ngën ji mindeef moo yegg yeggee ña xuus ba def fa yàlla jalañ mm. tagg ak jihaari bàkkan la dàqel noon ya du bal kut bàmba bam sëggalee bañam ya ñépp la añ mm-hmm. ka jékku jéggalee doonay rasoolu bu wér mm-hmm. càppaacolu bi yàlla bi xaadim la tënd tooñ yéegal na yëg yëg yi yaag suñ xeeri jikko yu bon yërëm ñu yiir nu yar ñu yor suñ lépp daanu ko kañ muñ tap lewet bari ngor am jom ne fuux sunu ay seexal na suuxat nu ab naflaay xorom sunu añ suñ bàmba yaay mujisaat ci rasuul yow lay damoo ba ëllëg kiimaanu kiimaani kuy kennal borom du la foñ mm-hmm. tànneef nga say taalibee tànneef laalaxaraxu la ba mm-hmm. yàlla tànnee yoneen tànnaat nga tànn sa ñañ yaa sàmmi sunu ruu ca suñ si diiti maam ya ba tey reggal nga ñoog barke tey santay gësam suñu njañ ñoo tekki ñoo taaru ñoo takkoy ngaram li ñoo for li ñëpp di jeex nee nañ fi bàmba gufuñ jékkuñ jógun waajuñoo tuxoo fi yow abada mhm. ru nañ fi yow niki ndaw yaa ëmb wépp njariñ tawul suñuy ndëggu tiim suñ bopp gaw na fu ne leeru bi teeg taaru biir xam xellu xejj xereñ mhm. tàbbal nu say tata fiiruk noon ya buñ ca ni niit buñ joy te buñ jeng buñ jaayoo ko supp jarañ baddil nu bayre bu ànd ak mucc wërsëgu wér fanqal nu ak ñàkk yaay suñ siidi mat nga galeñ mhm. fanqal nu beew mujj gu ñaaw cet rekki gam nawi jëf nangul sunu taalibe nuy seex yu yegg te sañ mhm. jéggal sunuy wayjur ak jullit bu sopp yoneen ñaan nañ ko borom bi am sañ-sañ di jëf lu du dañ moo jox yeneen la mu jox sëñ Bàmba tab bi nu cër moo mag yu rëy mbir moom rekke rekke xere macha allah macha allah li moom sëñ daam daam bi nii ëppoon naa ëppoon naa bañ a bañ a gaaral ci mm. ci émission bi benn sëñ Bàmba moom daa mel ni daa neex daa neex daa neex daa neex daal waaw dafa neex dafa neex dafa neex boo koy dégg tur bi rek maanaam da ngay da nga yëg leneen te taalif bi dafa am solo lool lool lool fa nga ko commencé. Mm. xam nga jékku-jékki rek dugg ci waaye da ngaa ko commencé da ah, ngaa commencé. waaw waaw di ñu ko junj di ñu ko junj ba far dugg ci <laughs> ndax loolu dafa dafa am solo ci aw way. Mm. ndax boo jékko-jékkoon na ko kii rek. waaw do kii waaye. xam nga tamit bu fekkente ne li muy bëgg a wax. Mm-hmm. moom boo ko waxee nit ko gàtt dégg-dégg. mën naa jàpp ne yow mii. dëgg la da ngay def bokkaale. dëgg la wallaay ne yàlla mi nga xam ne si eh, moo sañ lu nekk xam lu nekk mën a def lu nekk. moom moo di jox yeneen bi lu mu joxut kenn. mooy ko ci jëmmam ak ci ay mayam. dëgg la lu mu joxut kenn yeneen boobu sàkk ca la ko soob jox ko Sëriñ Tuubaa dara génn leen moo tax moo ne mu mujjee ko moo jox yeneen mhm. la mu jox mhm. eh, sëñ Bamba tab bi nu cër mu màgg yiw réyi mbir moom rekk rekk xere nga xam ne eh, dara génn ci eh, sunu borom ay dara génn ci sëñ bi yeneen tamit jërëjëf sëñ daam sëñ daam comme naa ñu ngi ci njeexintali émission bi xam naa li la ko waxoon rek dooy wax ci émission bii di jotaayu taarif nga xam ne ñu ngi koy amale fii ci maktabatu Cheikh xam daara kaamil yan kàddu ngay ci nga ci nga ci mën a indi ak ak noo gisee émission bi waaw ah, xanaa sant yàlla bu baax daaree kaamil gi rek généralement ndaxte delluwaay la kàggu la goo xam ne si nit ñëpp a ngi ciy gindikoo ci wàllu gëstu ci wàllu repère delluwaay. Mhm. xam ne booy tagg sëriñ bi sax da ngay da ngay bokk ci li ngay limaale muy kër goo xam ne si alxuraan rek moo ko ndax mhm. daaree kaamil. kon loolu tawféex la lépp lu juddoo ci biir it noonu la mën a mel. Mhm. lu juddoo waat ci biir it noonu la mën a mel. kon li juddoo ci biir mooy daaree kaamil TV. waaye li juddoo waat ci biir mooy. émission bii nga xam ne si mm. sunu bos la mm, kon noo ngi ciy tàllal loxo ñëpp mm. mboolem koo xam ne si yaa ngi bind rawu ci taal ci taalif rek waaye lépp lu aju ci xereñteef rek rawatina ndaw ñi nga xam géwél yi dañuy faral di wax na karkaree doon kàdd lëppaa lëppay mujje dawene xam ngeen ne mii réew gone yee koy mujjee loolu la ñuy faral di way kon karkar kàddu gu ndaw mm-hmm. mooy doon kàddu gu mag waaw lëppaa lëppay mujje dem ba bu ñu demee ba mag ñëpp jóge fi yàlla na yeex lëppaa lëppay mujje mooy bu déeg bi taawee mm-hmm. ba dem ba ñiis mm-hmm. lëppaa lëppay ñooy ñëw ci dewende ji kon loolu ay ay junj la yoo xam ne si kon ñu ngi ci woo ñëpp di ko rafetlu bu baax li ñu ci gën a neex nag mooy dafa wane ne mbir mi boole nañ ñu ci bu baax a baax a baax a baax ndax mboolem kuy yëngu ci fànn gi rek ñun mhm. ñoo ko mën a suuxat mhm. ñu ñuy bind ñoo ko mën a suuxat ñoo ko mën a jëmee ca kanam mhm. kon noo ngi ci sonni soññ suñu bopp eh, di ci soññ ñëpp kenn ku nekk disponible ci seen ci sa jëmm ak say xalaat ñëw xam ne nit daal bu la xasee ba may espace temps Euh, ci ci ci télévision ci mhm. boppam. Mhm. war nga koo fonk baax war nga koo sàmm ndax li gën a seer moom la la jox. xañ nañ la ko fu bari. kon boo amee ku la ko jox war nga ko sàmm baax te boo ko sàmmut it mhm. yaa sànq sa sa sa lu bari. kon li ñuy jàmbat. mën nañoo ñëw fii fësal ko fi. li ñu yom li woon yomb nañu. yal na ko yàlla barkeel. ci barkeb Serigne Touba ci barkeb bërëb bi. noo ngi lay sant bu baax. di sant ñi nga xam ne si ñoo doon technicien yi. ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant ñi nga xam ne si ñoo ne ci daara ji tamit di leen sant di ziare sama xarit bu baax suñu saam suñu saam ña ngi koy ziar bu baax di ziare xaritam bu wax suñu fàllu ngom moom itam ña ngi koy bu baax a baax a baax di ziar mboolem ñi seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëñ daam ko waxee woon ca njëlbeen nga rek mu mel ni tey ñi ngi dalaloon ci émission bii di jotaayu taalif dalaloon ci sëñ daam Diané di ab sëriñ daara waaye di taalifkat ndax ku dégg taalif fi taalif moom xam ne ab kat la boo xam ne ca ponk li taalifkat yi la bokk ndax taalif yi mu fi a taalif rek am na a may yeneen taalif waaye ginnaaw dañu ko ba beneen yoon waaye moom itam Daam la ci chaîne bi di Al Samadiyya TV kon comme ni ko sëñ Daam waxee rek ñu ngi sant bu baax sëñ Daam moom ci disponibilité am ndax dëgg yàlla am sëriñ daara ku ne xam ne ne doo am jot kon bu daggee ay itam ñëw dafa da ko daa jàpp lam lam doon def ci daara jam moog lii benn la ngir yaatal mbindum Serigne Touba ci ci taalif wala ngir yaatal lu baax kon moo tax mu ñëw toog fii ci Maktabatu Cheikh Khadim Daaray Kaamil kon suñu daam ñu ngi lay sant di la ñaanal ci bu baax lii nga nekk suñu borom dafa la ci tawféex ba yéen ñi ci am ak foo ko bëgg mu eggale nga eggale ko fa mm-hmm. ci barkeb Cheikh Khadim kon ni kon jotaay bi day mm-hmm. ba ajum bi ñu incha allah danañ dalal yeneen kàngam yu mel ni suñu daam mm-hmm. fii ci jotaayu taalif muy xarañteef ndaw yi kon ñu ngi leen ñaanal jàmm ak tawfiq kon bu ko defee benn yoon incha allah jërë ngeen jëf مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفاهم